jotaloon nu ko yool bi mu ngi fuloo addee mu jëm ci moom yal na nu ko borom bi nangul yaatal ak ramoom waaye sanga bi ne yal na nu yàlla boole ci ñoom yaram mu ëllëg fasaale seen njabootam fasaale si mbooleem jullit ci ko ko xam ak ku ko xamul ndax mooy yaakaari jullit ñëpp yàlla nañ borom bi nangu lu ñaan yi dàkke jotale yoon bi amin amin ya rab bi hurmati laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu nee nañu def ñetti faatiha ñetti ixlaas وفي صلاة الفاتحة yéene ka xalimatal muslimin ak njaboot gi yëpp ak ñi mootu ci ginnaawam yëpp ñun ñëpp ñu defal ci suñuy aajo waaye sànni bi ne yàlla yàlla fajalu suñuy aajo amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salatul fatiha bismillah yamin nee na dugalaale si ñaan gi rakkam ju baax ji seen imam ni baax ah kay ndam loo mu fii ci béréb bii waaye sunu boroom nee la may bu karaw amin tamit njëg laa yem tamit ñaanalale waa Ngor ñi nga xam ni ñoo seddoo leer yi yonent ak moo leen ko fi ak réew mi ak àddina yàlla mel ni jàmm ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salatul fatiha bu leer la kon mu ngi nuyu imam Moussa bu baax ak kilifa yu baax yi fii bu meleen nii dañoo fekk sunuy baay ñu fekk fi ay mag baax ci ngor la ko dalee ci maam Abdoulaye Samb ñu fekk sunu baay yooyu di leen gërëm di leen sant fii bu yombee bu mel nii bu yëpp ba weesoo ñooñoo tax kon ñoom la ñuy jëkk sant gërëm leen ci turi kilifa yu baax yi loolu nag moo leen fi andi parce que la fi nekkoon dara daf fi effacé wu ci mbaax ñoom bàyyi mel gërëm sant bu baax la ñuy sunu imaam yi monsieur le maire Mame Gueye nii ak ñi mu àndal waaye ñii borom ndox bi tànk yi bu baax baax a baax jaraaf Babou Samb ñi borom dëkk jaraaf Aliou Gueye ak imam Lamine Diagne ba ñu tuddee imam Moussa ah, la yàlla def commune bi ci loxo teg ndimbalu waa gox bi ñoom ñëpp la ñu koy nuyu bu baax eh, fekk lañ fa màggee ba mbay bu nootoo di meeru nootoo defe naa dëkk bi xam na ko bu baax bu ànd ak fekk mbooloo mu bare bare macha allah ak sunu mbokk Abdoul Aziz Guèye di meeru Wakam eh, fekk fekk nag seen jigéen ñi waaye lu ko jiitu Abdoulaye Diaw di sunu rakk di doomu sunu baay raal ak ah, ku ne ràññee na ci béréb bi bu baax a baax a baax ki ne di seen lépp nag ki ne bàyyi ngay nekk ak ngor macha allah di ci ñoom ñoom it mu ñuy moom eh, ñu nag kilifa yëpp sant leen ci turu kilifa yu baax yi ñaanal nag al oustaz Mame Libasse ci lii muy sóobu macha allah deret dëgg dëgg na du ay bis bis bu jotu la gis nga appel bu la diine di jikkool te nag bu nu fàtte ne ñun ci diine la ñu lii du chef bi de la kon nag ki wax diine bi nga wax discipline la rawatina ay kilifa yoo xamante ni déet bu lépp a desul nag buñ la jox ñee kenn du ñu respecté nit ñi tuuti kon loolu am di ko wax gërëm sëñ Maodo Cissé ngi ñuy toog wax naa ko ci suba naa ni kii doy na ci exemple ci lu baax ak mbokk ak ngor waaye nag ñun li ma wax ci suba la lañ wax ku wax diine nag di nga ne ñoom diine kon nag islam bépp moo fi toog fu mu toog dama ni islam moo fa toog bu dee li yàlla wax def na ko loolu rek moo fi ne loolu mooy ab lu xaw ne xasa di ñaan yàlla di ñaanal maam libaas la yàlla na ko yàlla defal ndam lu mu amoon it weesu ko parce que ñii ku ci am ndam suñu ndamawaay bu leen ndamante ba du ngeen ndam seen kër toj kër jàmbur ba noppi yaakaar leen mooy lan allahumma salli ala waaw bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw julli tàkkusaan bi ci jiital Sidou Amin bay Seydina Issa ubbi yal na yàlla nangu ñaan yëpp bu nu mu doon ñaan ci Seydina Libaas yal na ko yàlla ubbi ubbil ko suñu nopp xol ba lu mu wax ñu dégg ko yal na yàlla dégg soit bi ñu fii ba tubaab bi sax salu bi sunna parce que imam imam imam mu ndaw imam Moussa la بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أنفع كل شيء وأعوذ بالله الذي بيده ملكوت وجبروت ولاهوت وروحوت كل شيء من شر ما خلق ومن شر غاتهم إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأفضل صلاته وسلامه على رسوله ما دل وما هوى وما ينتهى من هوى إن هو إلى وحي يوهى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى إمامنا إمام الله المعدي المنتظر الذي أظهره الله فينا ويكون فضلا ومنا لجميع المسلمين وخاصة لحبيلتنا نحن اللبو ونشكر الله ونشكر الله ونحمده بذلك وبعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw kàddu yooyu ñu leen ni yéen ñëpp te di leen di balu ak di bal ak ñëpp di ñaan suñu boroom boole ñun ñëpp dafa ñu njëggal ak yërmande ñaan ko yi yàlla sàmmal ñu boppam nuyoo googu nag ñu ngi koy jaaree nii ko Chérif Seydina Issa waxe ci soxna Kiné Laye nii fi nekk buntu dërëti Seydina Limaamu Sufa jaare ko ci moom nag ci turu ngor gi yëpp suñ ko waxee nag jarax baabu sàmba ngi ngi toog ànd ak moo leen ñu yor tànk sa ànd ak ancien élève am yàlla dogal ñoom ñaar ku nekk yor ndombal tànk mu di suñu doom mam lay ak ibam yëpp nga nuyoo googu na ñun kerte ci yi fi toog ahlu bayti imam al mahdi alayhi afdalu salatu wasalaam mun yàlla yàlla jàppale leen damay gàttal ndax te kaddu gi wax naa ne kaddu kóllëre la kaddu kóllëre la ngir feddali kóllëre mbokku deret waxoon naa ko bu dox ci Seydina Limaamu ak Ibrahima Samba mii sanc moom Ibrahima Samba moo ko sanc gën a siiwal nag si ndombul tànk bu xam mu ni cëlal wante Ibrahima Samba moo turam ak kaddu kóllëre la si pas diine kàddu kóllëre si papa suuf askan mu dugg lépp te lépp dafa mën dafa sàmm kóllëre ngoon kóllëre boo ngeen di sàmm nag yéen sorofaaw yi yëpp ñu ngi leen ci ñaanal yàlla yàlla dooleel leen képp ku fi nekk nag di dal di seen naan limaam jël na nuyoo teg ko si yow nga tegal ñu ko si xalifatu général muslimine yëpp laay wax wax ma a fi toogal mu nekk kàddu jàmm joo xam ne gën nañ ko soxla si jamono bi léegi bi nekk seen naa waxe ngoon foofu lay gàttale samay wax ndaxte waxtu moo xat bi leen nuy duni san yàlla yàlla nangu lépp luñ fi ñaan si barkat Seydina Limaamu alayhi salaam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu barakallah yal na yàlla fay la ak sant ak barke tabarkalla Seydina Limaam bismillah yal na yàlla defal la waaye ma bëgg bàyyi laay mooy seen yaakaar wala bàyyi laay bi seen yaakaar non mais loolu question la sans micro la góor jigéen ñi toog ci chaise ñëpp ak ñi toog ci suuf ak ku taxaw yëpp dafa war gi fii la ci gi fii ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi ñuy def ak yàlla ñu diine ñu ànd ak moom yow koy gën ak yeneen xew xew yi ànd ak information ndeysaan daanaka wax waxu fanaan. waaw dama taxaw ne xaaral sentir ay kii dama ñu liggéey man damay génn rek. ñun ñooy am ñu ma xaar man maa métti vraiment sama téléphone dañ ma woo ci digal suñu borom ndax ñëpp a xam ne léegi daal maa ngi salaatu wasalaam ak ak ak yeneen alal moo ne. yore ko wees nag. mënuñu woon dara déedéet nga ne tënku ni tàmbali amuñu vraiment dañu tënk naan la ñu yem ay tëram ko nu mu war wala tëram ñu kuy sosal keneen te ginnaaw yoon ci yàlla moom moo fi am waaye yoon ci yàlla moom mu ñëwaat kii ñun boo xoolee kenn weer tàllati naa ak. ak boppam mu sama borom. li ñuy doyal waaye dañ koy nettali melokaan yoo xam ne ku yàlla defalul tawfiix di nga leen wecc ci melokaan boobu waaye ku mu defal tawfiix di nga ubbee ba nga xam ne kii kat ci gaal yi malaaka yi wax ne yéen dana jëm ni daaw ba ni mu wàccee ci maam Ibrahima yor jëm ni doomu aadama nuyu bët na daa moom comme mu mu taw na def xam yooyu waaye ñoom méthode bii boobu amoon boobu waaye dañuy dugg yàlla di violer te looloo tax mu mën ci am mucc waaye ñett dañoo demee turnu gis nga gars yi fi ñëw song nga def léegi xamuñu la xew xew fa ñoom it loolu lañu wax lu innaa suñu rabbi muy loolu a tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na maqaam boo xam ne bu Jibril ñëwee yor jëmmi nit moom dina xam saa yu ñu ne di ñëw yoon jëm yi boo xam ne maanaam yéen maanaam boo xam ne nga ca sàmm kaw naa la doy ci xaalis yi boo ci loolu la waxtu yi dafa yéen. daa mel ni waxatul la ngeen kenn xam ko ñu suuf lay. damaa la nit mënoon na tuum ci moom ba mu ñëw it di jël jëmb yi rek noonu la ñuy def dañuy rek saar boo xam ne ñëpp ko xam waaye ci dañ ko xamoon ci daa ñu jëmb yi bu daan wàcc day jël jëmmoom sol doon nit doo war may waxaan tey boo ko songoon rek musiba lay bi am nga jàpp ne ci yàlla waaw أجملهم إلى من جميل جاء على سورته إبراهيم لولا الإمام السيوطي وقت ci daawoon saaba yi mooy wiya ñoom yàlla di biir daan ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sol juma waxu leen séeréer ak yàlla kon noonu sant yi ni imaamu nag ñu mun taba alayhi salaatu wasalaam tey mu mun ko suul lay sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu ñu wàcc kon feeñ gis wala ko laa naam kon koy la ma nekk lii indi leen yàlla moo ngi leen sant kuréel yii mooy kàddu gi ñuy nëbb am ci kii la yàlla laa xoolal lu topp junni ak guddi yu li muy wax ci may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama ne walahu walahu alxiyaaru fi an yakuufa bayna al awaalimi wa maahu alwaalu asxaabihi wal walidayni mu ne yàlla may na ko sañ-sañ may na ko xiyaar soit duñu ak dina ñu ànd ak muy saabam Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, إلى قلبك يتشكل وتسوى للمختلفة ngeen am na ci yàlla yoo xam ne dañuy soppee di di jël ay melokaan yu wuute waaye da ngay nekkoon lu ñu wax bi da seen dugub jël melokaan mu ne nga laaj yàlla taw la rek sekkal la lu bari ci suuna def jàmmali taw taw ñu ne xam nañ loolu mais dinañ ñu yàlla dal di soppeeku jël ñu gën daaw a ñëw ñu nag am nañ ay activité ak ñu mel loolu ci seen waxtaan bi moo ngi ci tey moo koy def def na lu bëri li ci des tey kat buñ ci dugal fii ah yaakaar naa ni mbir mi dinañu jaaxle ne Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam bi te yàlla man loo amul ñu da koy maye ñii muy wax nag dañu tudd ci ay maye ليه؟ ما بقى يجوز الدخول على حلقات مستحيل ليه جم jëm yi cosaan ak day des bu soxee waaye yeneen yi jëm dañuy ñëw yeneen jëmmal pare bu ko nekkee mu xar jëmm def ko ay jëmm bu ko nekkee mu génn jëf melokaanu bi bu ko melokaanu wa التطور والتقلب فيتطور لهم في الصور والأطوار la bu ko defee mu di leen feeñu ci ay melokaan yu leen di réeral ñu nga di saaga di ko gën di ŋañ te bés bu feeñee ëllëg yow mal xiyaar ñu xam ne def nañu musiba ki ñu doon soppa di fanaanee way ak di ko bakk ak di ñaan ci barkeem moom lañu doon saaga musiba dunu gën a rëy moo tax ñu ñu gëm yàlla gëm ay dogalam gëm kàttalam yàlla kenn du ko fonto bu lay juuma mën na koo jaari cib nitam loolu lu am la moo tax nañu fonk téere yi nga xam ne mooy téere yi wax ci wet bi ci bu ñu yem ci téere yi zaay yi nañu seet mag ñi lan lañu bind ñiy jëflante ak sunu borom ci wet boobu nañ koy xool mu ne falaa yalbasuuna an yarahu ala hadihi alxaala falaa yasukun annahu min ahli dalaal fa yaqiisuuna bima yaqiisuuna bihi dalaal anfusihim yaqiisuunahu bima yaqiisuuna bihi dalaal anfusihim nee na ñoom kat dañu koy jàppe ku réer ngir seen ak réer dañu jël moom di ko natt ci seen nekk yi nit la te fekk kooku moo gën a gindeku ci li yàlla bind bu ñu demee noonu nag Seydina Limaam alayhi salaatu am wax bu wax am solo dafa nekk naar ba xeesoon ñuul na maa weexoon dundu maa ñuul tey ñu ne ah waaw ba tey nga déggati nga xam nga déggati ngeen yàllaay def loolu nañu delluwaat ci téere yi boo demee ci axlaamu nubuwa wax na xeeti kéemaan yi ba ci gën a jafe ci ni mu ko waxee mooy kéemaan gi nga xamee ne moom lañ tuddee xalbul axyaar waxtiraa ak suwar soppi ay jëmm wala boog di créer ay jëmm lu ne xeetu kéemaan googu moo gën a taw dina jafe ci kéemaan yi waaye nag neexatu ñuul wax dëgg yàlla sama mën na lu ko raw naar ba xeesoon ñuul la bu ñu dellusee ci alquran alquran mu ngi ñuy nettali ci yonente yi koo xam ne boo weddee weexat ñuul di nga weddi aaya ba mu def alquran di ko nettali deeti ko nettali deeti ko nettali ay yoon muy yont yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam yont yàlla Moussa xam ngeen ne moom dafa bokk ci ulul azmi min ar-rusul mën nañoo wax ne moo ëpp lu ñu nettali ay xisaam ci alquran waaye itam mu ngi seede mbir moo xam ne dina ñëw ginnaawam. te dinañu ci weddee yonentab yàlla waaye en même temps itam muy aaya boo xam ne dafa taxawal firawna yàlla tàggat ka ci keroog ca ba mu dajeeg moom ci Sina adxil yadaka fi jël taxruju baydaa min xayri su'a wala loolu taxruju baydaa min xayri su'a ñëw na ay yoon ci alxuraan dugal sa loxo ci sa baatu bu ba génne ko mu weex tàll waaw lan ngeen ci war a mën dégg nit ku weex mooy def loolu dugal loxoom génne mu weex war nan lay dooni kéemaan bu fekkee ne ku weex moo def loolu ngir mu gañ waxtu bala maa ñëw si tafsiru aayaat yooyu nga xamee ne ci raw na moo ko ko laaj yàlla tàggat ka ci ba noppi tàggat ka ci yet woo mu yoroon bu ko sàmmee muy jàng ndax ba mu ko tëddee dëkkee tàggat dafa daw sama ba ook da ko inni laa yaxaafu na day yal mursalun sama ndaw day am fit daw alladina yuballiguna risalati illahi wala yaxshawna ahadan illa allah kuy jottali yàlla da ngay am fit boo xëppee ragal yàlla dootoo ragal keneen mukk ku ragal ci ëttub yàlla yàlla génneel ëtt bokkatu ba mu ko ca tàggatee ba noppi Moussa dem ca Firaw di ko oo Firaw na dafa laaj defal ma kirimaan sama borom ba dugal ko ci bi gën a jafe muy xal bu aaya soppi dimbali wala soppi melukaani jëmm da nga ko doon liggéey te def na ko fii ci kanamu mag Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam sang ba fi jóge Seydina Abdoulaye da ngeen ko dégg mu xaajee jëmm lii weex li ñuul bu xoolee fi yàlla moom Muhammadu Rasulullah laa ilaaha illallah maa ngi ciy ñëw jërëjëf madame waaw loolu def na ko ci kanamu maam bu xoolee ku wax bi ne Muhammadu Rasulullah xoolee ku ñu fi imaamu laay Rasulullah nga xam ne boobu mu ngi fi ba tey waaye woon ni fi ñëwee waaye alquran du ko dégg bu bind fa alquran ñëpp ne fekkuma fi Moussa de waaye nit jëli nañ ci Ibn Abbas radiyallahu anhu pour yoon yàlla moom ma du mekkul Moussa ci zahir yàlla yóbbu na ko ba mu ko yóbbu ca rañaan moomu gis yoon yàlla Moussa gis Isa gis Ibrahima gis li des ci yonente yi mu ñëw ku ne mun la kii nii la mel ak mel ku ne dem na ci ngoow ñett lu mat ñaari yoon wala ñett melokaan moom lay fekk day uuteeg bi mu la bàyyee woon ni ko bàyyi bu caba caw waxe woon ne Seydina Limaamul Mahdi mii booba mu ngi ci këram boo ko mataa doxali soxla bàyyi ko xar kanam mu ne boo oññee ko ñëw fekk ak geneen xar kanam bu uute ko moom moo dund ak moom xal bu baax lii leneen Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزهد léegi pour ñu mën a xam Moussa nan la meloon dégg nga yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ne gis naa Isaa gis naa Musaa gis Ibrahima mu ne Isaa de ba ma koy gis nee dafa weex dafa xonq waaye nag am na ci karaw karaw buy way jàpp ariidu saf nee ne dund ba yàgg lool waaye Musaa fa aadam Musaa day ah dafa ñuul aadam maanaam boo ko doon fii wala gàttal mooy ñuul parce que tubaab bi bureau la ñu wax yaakaar naa moom bureau waaye nag dafa am lu ñuy wax al udma shadida bi ngay ci ñëw mooy xeereel bu xóot mooy ñuulu kukk mu ne jëkk yi mun nee na dafa amoon tund sabiti xoolal ñaari riwaay kii ñu yor karaw nit ku ñuul kii yor karaw nit ku weex kii ñuul kii weex dina gisaat yonent yàlla Moussa mu ñuul yor karaw nit ku ñuul mu gisaat yonent yàlla Isa mu ñuul yor karaw ak nit ku ñuul moo tax Ibnu Omar daan wax naan riwaaya buy wax ne yonent bi dafa gis dañ ko gis mu xonq nee ni ah noonu yonent yàlla Isaa ñi ko yonent bi gis yëpp aadama nii jeex nii waaye mi rek riwaaya bi ñoo am ci Buxaari benn ngoo pour ñu xam yonent yàlla Musaa nan la meloon dafa wax ne moom sallallahu alayhi wa sallam amma Musa fa Adam jasim sabit mu ne ka annahum min rijaali zubt waaw lan la ñu jàll mu ne Moussa daal bu ma koy am lu ma koy méngalee mu ngi mel ni ku bokk ci xeex bu ñuy wax zut ñen ñooy zut boroom xam-xam yi ne azuttu jinsun min assudan azuttu jinsun min assudan nee na xeet woowu ñuy ooy sut ñoom xeet la nekk ci Soudan mu ne yonent bi ne ñoom laata lu ma leen jëlee ñoom lay niroon kon tekki na aadam ji mu waxoon mooy lan mu ne qaadi al abu al qaadi abul fatahiyat wax na ci masaarikul anwaar ala sihahil athar mu ne ka annahu min rijaali sud ay jinsun min assudan ah waaw léegi ibnu masud ñëw ne xaraja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qabla alhijra ila nawaxi makka fa xatta li xatta wa qaala laa tuxdisanna shay شيئا حتى آتيك ثم قال لا يهولنك شيء تراه فتقدم شيئا ثم جلس فإذا رجال سود كأنهم رجال زب وكانوا كما قال تعالى كادوا يكونون عليه لبدا pour nga xam la mu ne bés yonent bi wa sallam lu jiitu gàddaay bi ànd naa ak moom ci wàlli màkka mu ne ma yamal fii dal ma rëddal aw rëdd dal ma ne bul def dara bu fi sos dara xeet man ñëwum te itam bu roo gis la tiital lan la ca mu ne ba te tàggat shay'an summa jal si yonent bi dox tuuti daal di toog maa ngi koy seen mu ne fi ma toog man fa ida rijalun suudun ka annahum rijalun suud mu ne ci saafara rek ma gis ay ay ay ay gaa yu ñuul yu ñuul ñu ngi mel ni ñu bokk ci xeet woowu nekk ci Soudan waaw yonent bi ne kon yonent yàlla Moussa mu ngi mel ni ku bokk ci xeetu Soudan a ah, loo koy jàpp pour nga firi aaya bi da ngay jàpp ne dafa ñuul kii ne gis naa ay nit ñu ñuul jinne yi soppeeku la wala bi ñu déglu si alxuraan nee ne ñi ma leen mën a méngalee mooy xeet boobu ci Soudan bu le wakaar kama qaala nabi sallallahu kama qaala allahu taala kaadu yëpp mën alayhi bala mooy turam bi jinne yi dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuut ko ñu daan ci kawam mu ne ñoom ñi ma gis jëmm yi ñu yor jëmmi xeet woowu ñu gis ba tey mu ne gisati naa Moussa raaytu laylata usriya bi Moussa rajulan aadam tuwaalan jaadan ka annahu min rijaali shanu ah nee na gisati naa yonti yàlla Moussa muy boo xam ne dafa ñuul am taxawaay yor karawu nit ku ñuul mooy jam wu saarul munqabit wala mutakassir mooy karaw boo xam ne dafay ñagas di baramoo moo léeg boo ko peyee muy dox di rot mu ne keroog karaw boobu laa gis ci moom ah kii nga xam ne nag mooy teg gi li nga xam ne mooy xadis bi dafa ne aadam min al ummawudiya fi nnaasi assumratu sadida nee ne aadam de ñu ngi ko jëlee min al udma am nañu ne al udmatu wajhul mooy li fee sa kaw suuf si yàlla si doon maam aadam nee ne boo koy seet ci nit ñi nag moo di ñuulaay bu tar sumratu kon ñu dem ba tey mu ne gisaat naa ko mu mel ni ku bokk ci xeet woowu ñuy wax sunu a sanu a dañu dëkk côté yaman ñu ne wëccu tasbih yi alayhi salaatu wasalaam bi rijaal sanu a ñu ne fi tuuli wa sumra ci taxawaay ba ak yuulaay moo tax itam mu di leen méngale xeet woowu dëkk côté yi nga xam ne mooy yaman ak saarul jaax nag mooy karaw gi muy wax mooy karaw boobu nga xamee ne dafa ñagat léeg muy baramo léeg-léeg boo koy muy am luy dagga di rot bokkul ak karaw bi xam ne feñ bu ndaw buy jël mu man koo feñ bu dee suñu yëf léeg-léeg sax kon da ciy amu yoon karaw boobu mu ne saaru jaxb huwa alladi yatajaxab ka suxuuri sudan ka suxuuri sudan xanaa leer la kon karaw la boo xam ne yan xabit day baramoo léeg-léeg dal di dëgër lool comme karaw ak nit ñu ñuul ñi sumra sadida nag boo ko déggee mooy astawaat moo di ab ñuulare moo tax bilaa bi ko verkal yi di jàngale jarkal yi gëstukat la boo xam ne day def ay taraaju maanaam saaba bi mooy kan ak fu mu jaar bindkat bi mooy kan ak fu mu jaar bi muy ñëw ci bilaal dafa wax waxul ne aswad ñëwul ne ku ñuul la dafa ne wa kaana sumra sadida sumra la wax bilaal dafa bëgg wax ne dafa ñuul mu nekku xóotoon ak xeereer la maanaam kon ku ñuuloon fukk la te bilaay ku ne xamoon na ko ci ñuulaay ba ca la ka eh, Abu Zar radiyallahu anhu ci la ka fase woon ne yàq na sawda ba tax yonent bi yëngu woon a ayyartahu bi ummi ndax dañ koy xas ci yaayam innaka mraun fii ka jaahil mu ne ko yow de nit ko boo xam ne dese nga ak ceddo gu ne bi ñuy firi aaya bi sumrat sadida boobu boo ñëwee ci al imaamul qurtubi ba mu ne wa nadaa yadahu fa ida hiya baydaau linnaadirin wa adxil yadaka fi jaybik taxruj baydaa min gayri suu lan la ca teg mu ne wa kaana Moussa asmara shadida sumra ba ñuy jàngale Bilal dafa ne kaana Bilal shadida sumra kii ne kaana Moussa asmar shadida sumra mu ne summa aada yadahu ila jaybihi fa aadat ila lawniha al awwal nee ne Moussa ku tawantigu la ba nga xamee ne dugal na loxo ba coroon ko fataan lu génne ko mu weex tal suñu borom ne bay ba lin naafiri ñëpp a waaw loxo booy dugal léegi ci sa baatu guba teg ko ci sawet ay bokkul nee nañ def ko rek teg ci ron xataanam génne ko mu weex tal aaya bële naza'a yadahu fa idaa hiya baydaa'u lin naaziriin képp kuy xool xam nga ne lii kat loxob nit ku weex la beneen aaya mu ne min xëyri suur te du weexaay boo xam ne weexaay bu baax la comme ak ràmm wala yu demee ci noonu am na ci ñun ay nit ñu weex waaye weexaay jàngoro la pour ma tudd ñu bu ñu génnee ci jàngat yi dañuy am problème weexaay boobu weexaay bi nag la mu leer ci bët yi ñëpp ne lii loxo bu weex tàll la min xayri suuf si beneen aaya bële mu ne bay baa li naasirin mu weex tàll ñeen ñëpp a ñu koy xool mu ne lan summa aada yadahu ila jaybihi fa aadat ila lawniha al awwal mu ne Moussa ba mu delloowaatee loxo ba ginnaaw bi mu weexee mu dugalaat fi génne mu delluwaat ca couleurum bu waaw couleurum bu kon bi mu génnee loxo bi loxo bi dafa weex li def ci yaram wi ñun nit ñe ne loxo ba ñuuloon weex loxo ba weexoon ñuul na looloo doon dugg ba Moussa jëkkee génne loxo bi dañu ne loxoom bi ñuuloon weex ñëpp a gis ko mu weex mu duggalaat ko génne imaam Qurtubi ne fa ila lawniha al awal loxo ba weexoon ñuul na leer na ci ñëpp na Moussa dafa ñuuloon yonente bi ko sallallahu alayhi wa sallam loolaa waral mbir ma mën a doon kéemaan loolu moo waral doon kéemaan moo tax soxaraaw yi yàgg fii jóge bi muy wax dafa ne wa naarifu anna Moussa kaana asmara law lidalika yakunu albayaadu fi yadihi muxaalifan mu ne Moussa dañ ci ñuul la looloo tax weexaayu loxo ba uutee di des ci yaram wi kon defe naa loolu leer mu daal di wax ne معلوم أن موسى كان أسمر اللون كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه أن يصف الرسل الذين لقيهم في رحلة الإسراء والمعراج nee ne Moussa li ñu xam ci moom moo di ñuul la ndax naa ni yaakaar naa ku def moom dara dégg nga baat boobu ci ñoom daawul laa wax aswad bu dul nga bëggee xar asmar rek lañ lay wax wal arabu taqulu lil aswadi asma al arabu taqulu lil aswad asma boo demee ci Égypte gi abu samra lañ lay woo wala ñu lay ooy asma kon loolu li mu bëgg a wax mooy yow nit ku ñuul kon mu ne wa min hunaka nabiatu yad wa nuruha fi sumrati lawnihi aaya min ayati illahi walaw kana musa abyada lawni ma zahara bayadu yadihi mu ne ci loolu ngay xame ne weexaayu loxob Moussa ak leer bu mu leer ne lii loxob nit ku weex la ci yaramam bu ñuul nee ne loolu kéemtaan la ci kéemtaan yàlla mu ne bu doon Moussa nit ku weex la nee ne kon weexaayu loxo bi du feeñ ndax yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla di def loo kéemtaan googu am na lu mu bëgg a bëgg na wane ne moom suñu borom moo mën a fekk lu weex mu ñuulal moo mën a fekk lu ñuul mu weexal moo mën a fekk lu weex génn ci lu ñuul moo mën a fekk lu ñuul mu génnal ci weex mu génn ci lu weex loolu mënu ne alquran bi nga xam dama loolu ah boo koy dee duñu sax kii tànn bu rëy la waaw ñu ñëwati mu utiliser la baat boo xam ne amul werante man ngaa werante sumna man nga werante udma waaye dafa am baat boo xamee ni kenn mënu koo werante ci arab ndax kenn du ko jëfandikoo ci geneen maanaa budul ñuul fukk mu waxaat ne war aytu isa sharban ajaba jaxda ras xadid al basar mu battan al xalaq mu ne war aytu Moussa asxam batanko asxam aadal kathir shab shadid al xalaq mu ngi gis gis mu ne gisati naa Moussa isa li di kaw mu doon ba xabaar bu weex nee na ba tey daraw ba borom nee ne mu doon ku ñaw a gis mu ne Moussa raaytu Moussa asxab aadam baa nga asxam arab mënu koo jëfandikoo ci leneen mën mu ne mu ne kasiira sax sadid al xalam ku bari karaw la waaye yàlla du ko bind mu miskile moom la yàlla mosal mu ne wala ay Ibrahima xam ngeen fala anzur ila irabin min arabihi illa nazartu ilayhi ka annahu sax mu ne dama xool Ibrahima cër ba cër mu mel ni sama naka waxaat naka feneen nee ne maag Ibrahima mënuñ ñoo xam ne ñun xam nañ loolu kenn mënuñ ñoo xam ne maag Ibrahima mu ne xool naa cëram yëpp man ak moom mën nañu léegi nag bii Moussa nee ne asxam aada kat lan mooy al asxam ñu ne al asxam huwal aswad lan moo la koy wan sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne allah allah fi ahli mudrak assawda assuhum aljiaat fa inna lahum nakaban wa sikra nee na maa ngi leen di artu ci ñooñ dëkk ci li nga xam ne mooy dëkk yooyu nekk ci dëkk bu ñuy wax misra mu ne ak suud ak suxum aljamaa mooy ñu ñuul ña borom karaw yu barama bu la ngeen gën def daan ci ñoom te maa ngi leen di àgg ci ñoom ak suxum ak suxum jax jàngu ak xam boo dee góor ak xam la ñuy wax boo dee jigéen ñu ne sax maa boo dee góor ak xam la ñuy wax boo dee jigéen ñu ne sax naa mu ne maa ngi leen di àgg ci ñoom waa lan la yaa rasulullah mu ne ndax ñoom dañu am askan yooyu ak benn Égypte bu njëkk boobu dëgg yàlla te eh, ñu ne nañ ñoom même banu Israël dafa am lañ loolu ko ak ku jàng histoire war na koo xam ci téere français arabe bi bind na mu ne nag ñooñu ñu ngeen def dànk ci ñoom te bu leen kenn la ndax dañu am aw askan maanaam bu kenn amul amul borom bu kenn amul xaala Omar fa natabahum anna umma Ismail minu hajar mu ne seen askan wi muy tudde moom sallallahu alayhi wa sallam mooy yaayi Ismail hajar ci ñoom la bokk te dafa jur moo jur Ismail mu ne am nañu itam ngoro mu ne anna rasulullahi tasarra minhum sallallahu alayhi wa sallam tasarra minhum nee ne yonent bi sallallahu alayhi wa am na taara bu bokk ci ñoom africaine moo jur doomam bi ye wax Ibrahima mu ne bu dundoon di yonent la xanaa yonent la dagal na ci nit ku ñuul doomi nit ku ñuul nàmpal si ku ñuul bu ne bu dundoon di yonent waaye sama ginnaaw yeneen yonent dañ ko tabaal Ismaïl aajo Afrique la jóge ñuul kukk dëkk bu ñu wax arab ca Égypte yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam baatab asxam moom la jëfandikoo boo fàtte la ko ci li aan muy yóbboo la ko andi woon te fekkoon góor ci soxnaam te góor bi xam nañu ko ku ñuul la ñu tuddee muy tudda Surayk ibnu Saxma moom Surayk la tudda doomi nit ku ñuul ki bañ ko tuumaalee way ne tuumaal ko moo andi rëbboo gi am na yeneen riwaaya ne da ko fekk ci soxnaam sallallahu alayhi wa sallam ba wax ji jeex waaye ba ca soxna sax jëlee ëmb lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dafa ne unduru fa in jaat bihi afhama ad ajal aynayni ba ko wax ji jeex mais xool leen xale bi bu ngeen ko fekkee asxama muy nit ku ñuul kukk ak ajal ay nay ni bët ya day weex ñoo ñuulu ba bëri ñu kukk mu ne bu boobaa de na ngeen xam ne ah way mir de moo wax dëgg way mir moo wax dëgg lu tax mu wax dëgg mooy ku muy tuumaal yaayam nit ku ñuul kukk la moom nit ku ñuul kukk la kon baatak ak xam bu ñëwee loola lay firi amul beneen firi ci arab ak xam ku ñuul lay lay dañ koy euh, ñuulaay lay firi loolu wax ni ak ak xam kal xuraa kal xuraa kon imam ibnu Juzay jëfandikoo na itam shadidul utma nee na itam wa Moussa kaana shadidal utma moom itam ku taroon ak ñuulaay dañ daan wax ne ak xam mooy ñuulaayu baaxoñ kooku ñuulaayam tar na léegi nag limaamul maaj bi bi nga xamee ne dañ ñu ko déggale woon sallallahu alayhi wa sallam lan mooy ak couleur dégg nañ ci sumba sadida dégg nañ ci sadida dégg nañ ci ak xam yooyu yëpp boo ko seetee mu ngi fii kon lépp yàlla la mu kiimtaan gi mu def saxal na moom sallallahu alayhi lu bari ci mufassiru yi saxal nañu ne Muusa dafa ñuuloon kub loolaa tax loxo ba weex mën a doon kéemtaan waxtu woon luy def ngir rek weex ak ñuul lañu bëgg mu rees xalaat mu rees ñi mu sëg mu rees ci ñoom ndax lii boo ko dee manoo manoo expliqué sama borom ñun ñi kan moo ko fiy def su ko fi jéem xam xam ni yàlla rek ma mi def dina ñuulu jala baleeri yonnen baleeri tuuru jageej ñuy naan te beex ma tuuru jageej ñuy naan suñu borom aaya la ko tudde sa fàtte aaya la ko tudde kéemtaan si juróom-ñeenti kéemtaan yi mu doxal yoon ci yàlla mos ak sànni yet bi mu doon teel. Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu yëpp def na ko ci buntu aha albu aaya waaw boo mën laa si des nan la ko def kooku bu ñu xaw a sànni yet ba mu doon teel. gën na xeetu doomu aadama ak gën na xeetu luy dund. jëm ci xeetu lu way lu dundul jaaxal aw yëpp moo gën ci jamaat doon luy dund lu dundul doon lu dund ba yàgg luy dund doon lu dundul lu mu wax lu ne duñ ko xeet duñ ko fekk ci mu ne sànni mu sànni ko ci saa si mu doon jeex dugalal sa mu dugal génn ci saa si mu wax wala loolu tàggaloon na kasi ba noppi ndax bu kasi tàggatul woon bu demee ca fi raw na njettee yooyu am ñëpp a tasaaroo moom day daw waaye daw bu njëkk ba yàlla dalal na ko dalal ci kon pour lii di ñëw maa ngi nag Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi ci des laa mu sopp jaan jaan bi Seydina Babacar imam imam Babacar suñu maam wax lu mu xam kenn mënu koo wax loolu mu xamul boo ko lu mu xamul du la ko boo ko loo warul a xam du la ko doon na xam ne sabab loolu ñu dundaal moom ñëpp xam ne dafa ne dem nañu seeti soxna ñu wax soxna ñu seen seet danaa am nañ ko ci histoire yaa ci loolu tey naa limaamu safare ku ne xam na soxna ñu seen seet nan la gis woon tey xam-xam ba mu yoroon mu ne man dem ca moom ñu toog ak moom di kàllaat Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nan la nekkoo fii ci bari mu ne leen dinaa leen nettali ci moom mu ne dinaa leen ci wax ñaari mbir yoo xam ne Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam daf la tuur leen solo dama koy tere maa war a tere maa tere foo nag tere wax lu mu xamul ñu daan enquête xam nañ ko boo ko laajee lu xamul la ko wax boo ko laajee loo war na xam du ko wax dañ koy laaj pour ñu doon noonu la doon def parce que ñu koy laaj war nañ koo xam loolu yeneen ak yeneen mu ne leen dinaa leen wax loo xam ne ñaar yoo ne kii la ko defee kii ngeen mu ne ko la mu ne kii soxna jumaa bi dañu ñëw ubbi fekkuñu ko wala fii man boobu dañ ubbi pour daan ci ginnaaw duñ ñu ñëwee ubbi fekkuñu ko duñ ko boo xam ne ko rek mu ne dañu ñëw ubbi du fekkuñu ko parce que daan di continuer di tëju la baxaan lam tax min raw di xab yi tëj ba ñu tëj ak miire gañ koy miire ku la tiire dañ ko doon condamné ci ginnaaw ki daan monte gar ak sëtëm direct moo ñëw man wax ma ca gore 94 naa ci mu ne mu ne leen tubaab bi mu ne leen doole parce que xamoon nañ ne boobu kii moo ko bindee te maam monsieur loolu ñun ñu ñëw ci mu toog moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam maam Baro mu ne ñu ne bu limaam du may yóbbu bi ñu ko naa ma ooy limaam ma xool ñu si nekk baraka la wóoree ku mu ko wax ñu sopp ko borom mu wax ko ñuy xool ku mu nu mu leen neexee jël na dem ma xool ñu si Namba kii Namba daa nekk lu gën a kii maam la seen seen mais nag lii def na ko fii ëllëg na boppam bi ne buñ ko du sa wax mukk ndax ci bunte bii la ko xalbul am pour xamal la Seydina Limaamu lan la ma ne boole diine ga mu andi kenn andi ko sellate ga mu andi kenn andi ko deful yooyu ba noppi ñàkk diine déedéet kon istidraaj lay doon mu ne ñaareel bi yoon defut melu ni mel mu ñëw toog tubaab yi ñëw nee di ma uy limaam am li loo xamee ne dafa dal ci sama tëri xel lu da ma yëg lu dal ci sama tëri ma xool mu yor forme weer yii kii mu ne lu ndaw ma xool ci Seydina Limaamu toog gisuma Seydina Limaamu man leen seet leen kuy limaam ñu seet seet seet dem ma xoolaat gisuma ko ma xool Seydina Limaamu li mu def ci yooyu jeex jeex monsieur Ngom ca ba ñu demee quatre-vingt-quatorze moo ma ñëw di ma seet fa ma bu ne ma fii dinaa Limaamu Laay dinaa wax dara ci moom bu ne sama maam dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon monté ñoo ko doon ubbi ñoo ko doon ko daan mu ne jommal na maam mu jommal tubaab ndax nee na moo leen wax ne ñëw naa ubbi kër bi ma ñëwee ubbi kër gisuma ki ma fi bàyyi woon waaye gis naa xale bu ndaw bu toog ay ndab yu dama daal di moom mu tiit ba mu delloowaat tuuti daaw ba dem xam tubaab yi nga waaye dina xam lu expliqué loolu mu nekk man mu defati man lu mel noonu ñëw naa bés bi ko ubbi ma ubbi ko fee ka mu fees nii mu tiit pour sécurité pour wàllu la bi bu maanaam mu mu ngi ñetteel ba mu ubbi fekk ba pour mu gën a soppi na boppam def jamaat lu mu am jënd boppam ci loolu dellu si mu am noonu. Seydina Muhammad ci duggoon di wax li ci Seydina Limaamu def lépp sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen meloon yamu saytu woon ba wéy neex kat bu weex ah baa mu ñuul doon nga ko wax léegi neex ka mu ñuul baa mu xees li ñuy xam yoon bi xoolal la ko dégg nga bàyyi bàyyi maa ngi bu ne gis ngeen meloon yamu saytu woon ba wéy neex ka mu ñuul baa mu xees li ñuy xame yoon li maamu laay ku mu waarul da nga koy ku mu lu nga woote ku mu ñuul li kon bokk na ci li ñuy xame yoon ne téem boobu ma la wax laa mu bu wax mu ne li ñuy xame yoon bokk na ci xalbul ayaan mooy neex ka mu ñuul baa mu xees bay maa bay ne li ñuy xame yoon am na beneen boo xam ne dalaa il nubuwa maa ngi nag moom lan moo diw melokaanam ñu doon wax ci Moussa booy ñëwaat ñu ne Imaamul Mahdi yu asmat sadiqi sunna dafa ñuul tar ñu la boo demee ci laabiyatul xalawaan yi daf la wax ne la bi mu ñëwee ci buntu boobu ndax ci Mahdi yi rek lay wax mu ngi ko ubbee ala ayyuha tasa'alu an xabari mahdi maada minhu abana dalil dafa dem ba wax ne وجهه في ازدداد سمرته كالكوكب الدري المضيء جليل وجهه أركان الإمام مالك في ازدداد سمرته في ñuulaay bu tar léegi nag kalkawkab الدري mu ngi mel ni biddiw boobu nga xam ne dañ ko jëñ bu daan dal di sànni leer mu di buy leeral jëliin dañuy mag léegi Imaamu Maalik noonu ki nga xam ne nag mooy Oustaz Abdoul Hamid al Hilaali bi muy wax ci melokaanu maadi yu laay ba dafa ne te moom yi wax dafa xees ku weex la égyptien mu ne hal hunaka xikma fi an yakuna al imam mahdi zu basiratin samra ndax dafa xam xikma imaamul mahdi war a yor couleur bu ñuul dañ ko ko laaj mu ne waaw am na xikma mu ne nag amaana ba xikma ba man li ma jàpp mooy rad baad nufus al basariya allati tanzuru ila ashaabi basarati samra nazratan mu ne lii day jàjj couleur maaju bii ñuy séen ñuulaayam boobu yàllaan ci avertir di jàjj ñi nga xamee ne ñooy xool ñi yor der boobu xool bëtu xeedeer dégg nga loolu moom mi wax nee ne rubbama takunu hadi lxijma hiya rad ba'du nufus albasariya allati tandur ila asxaabi albashar samra nazratan duuniya képp kuy xoolee nit ku ñuul bëtu xeebeel maadi boobu ñëw di ñuul wajhuhu fi sidaadi sumratihi kal kawkabi durri mu ngi jël maadi boobu buy ñëw di ñuul waaye yàlla ci jajja di freiné képp koo xam ne yor nga yaa ngi xeet ñi yor couleur boobu ñuulaay boobu moom la wax fii te man gis naa koog sama kii li anna mawasin al bashar aadatan maa takunu xaatia fi taqwimihim li chahni l xayaat nee ne doomu aadama yi seeni nattukaay li gën a bari dañuy juum ci ni ñuy naxte doomu aadama yi dañ ciy faral di juum bu baax léegi nag yàlla dafa am ay asrar wa bil xatmi hunaaka asrarun kasira lil xaaliqi fi xalqihi nañu xam ne yàlla am na ay mbóot yu bari ci biir ay mbindee bam nañu xam loolu yàlla moo kat moo moo dogal loolu moo tax boo demee ci tajmilatul futuha bu Cheikh Tourmi dafa wax ne wal anbiyaul aidun lahum asrarun fi anfusihim mu ne yonent yi war a ñëwaat am na ñu ay góor ñu àndal ci seen ñëwaat boobu moo tax fii mu ne luy fàtti bu naa asrarun kathiran min xaalisi fii xalqi ah wax ñu def ñu def ñu mën a dugg ci li ci des waaye dafa wér nit ku ñuuloon weex wala nit ku weexoon ñu waaye am na xeer weexoon ñu xanaa xeer dëgg-dëgg yàlla waxu la nag dëgg bi xaw xeer lan moo gën a dëgër nii wala de xaw xeer gën a dëgër nii ci la ñuy tëje ñu déglu ci bu bëri al xajaru aswad ba la nit ñi rayante di xëccoo bu doon wax te daan maa weexoon démb ñuul te wala de maa weexoon démb ci àddina maa ñuul fii ci àddina bu doon wax ñu di ko dégg maa weexoon démb ci àjjana maa ñu fii ci àddina te moo ne de ab xadis la de xadis bu wér bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne ñu jële ko ci ibnu abbas qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nazala alxajaru alaswadu min aljanna wa huwa ashaddu bayaadan min allaban fa sawadathu xataaya bani aadama nee ne xajaru aswad boobu ngay gis ak li ñuul ñuulaay bu rafet la ñuul adduna bi pënk ci tuuti ko ko ci kaw ñuulaay bi mu ne bi muy génn àjjana moo gën a weexam soow soo weex na de lu ko gën a weex nee ne xool ko fam ne xajaru aswad yonente wàllu yi ñëpp dañuy ñëw di ko ko xoola boobu maxaar xoola boobu maxaar nee ne sa woo def fataaya ba muy aadama li sabab yàlla su naka lool mooy ne moom ci la doom aadama yi di rees loo di sikkutloo seeni bàkkar kon nga xam ne kooku sang la borom bàkkaar yi dañuy daw jëm ci sang ngir lan mu ne loola sama borom ba soppi melokaan déggal na ibnu adam bi ban déggal ba moom sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alxajaru aswad yaminullahi fi l ard fa man lam yudrik bayata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fastalama alxajar faqad baaya allaha wa rasulahu mu ne xeer woowu mooy ndejooru yàlla ci kaw suuf nee na ku fi fekkul jaayante bañ doon jaayanteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo ko fóonee mel na ni bàyyi ak yàlla ak ab yonentam ndax si bàyyi ko di teew daal waaw loxo loxo buuru wala de noonu la ñu kon nag déggin bu nga xam ne moom la ci dégg moom it noonu rek ci lay tëjee ndax waxtu yi daf na doon te daf nañ moom sawadatu xataaya bani aadama déggal digg bu rëy mu ne ay sayyartu sayyidan bi taqdirin iya fa lam yakun min al ma yadullu ala siyaada illa al lawn al aswad fa kasaahu llahu taala law na sawaat nee na xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne xataayaa bani aadam seeni jumtee tax bu ñu mu ne sa yaratu sayida mu ne looloo tax nit ñi seen ak mooy yàlla ak seeni jumte moo soppi doj wi mu di sang bi taqdirihim iyaahu sa koon gañ koy koon mu ne fa lam yakun fil alwaani maa yadullu ala siyaada mu ne amul ci couleur yi benn couleur bu mën a feeñal ak tàng dëggantaan mu ne illa law leen aswad yàlla gisu fi beneen couleur bu mën a génn daraja yi nit ki ak ak tàngam lu dul couleur bu ñuul moo tax président yi ci addina yi ak buur yi pour seen gëdd mën a génn seen cortège du déy waaw mu ne gisuñu ci melokaan yi mën a génn dëggantaan daraja yi nit ki lu dul melokaan bu ñuul mu ne fa kasaahullahu taala law na salaat ci la ko yàlla solale melokaan bu ñuul waaw kon looloo tax waykat ba way ba noppi di dugg ci lu mel tolloog jëmmam dafa tànn melokaan yu ñuul solal ko ko fay rakk sëriñ la mu soppi ko mu di sax góor gi nag dafa ko bind boo demee ci téere dañ la ne def na ko min xëy na waxul waxuñu bu ko wax dañ ko fekk ci biir maktabaat yi boo demee ci tax si alxabir wa tax bi leen xasala dañ ko fekk bi muy wax ci melokaan yu ñuul li tax moom wuurul ba noppi pas melukaan wuul bëgg ko lool lan la tëjee dafa wax ne wallahu albasu ahla bayti muhammadi law na sawaari fa kuffa anka xijaabi bu ne yàlla de solal na nit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melukaan wuul kon ne bul dàgg sa ak ma nga defe ne ay yére leen ko waxul ay doon dañu amul dégg dañuy defe ne yére la yàlla du solal seen ay yére bu dee ay yére dañu tànnal bayaat mooy weexaar waaye ak kan nga ibnu arabi ne melokaanu sang moom melokaanu ñu moo tax moom ñu def sa waaye maanu tee mu waxe ko noonu li des ci waxtaan bi dafa xaw a bari te waxtu bi tax na li ñu mën a wax mooy Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam waxu fi dara loo xam ne mënuñu koo layal waxu fi dara loo xam ne alquran mënu koo wax wala waxu ko waxu fi dara loo xam ne nit ñu baax ñu waxuñ ko waaye amuñu benn nëbb nëbb ci li nga xam ne Seydina Limaamu wax la ci gën a rëy ba ci gën a tuuti alayhi salaatu wasalaam wa axiru daawaanaa an alhamdulillahi rabbil alamin fekk fa dañuy jàng ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti xalaatu fatiha Thank you.